Serigne Mbacke Ndiaye coow li bëri na ñii ne jóge ci avion daanu ci saret ñeneen ñi doomam moo ko yitteel moom président Abdoulaye Wade secrétaire général euh, bu seen euh, parti nekkoon njiitu bu Sénégal euh, Serigne Mbacke wa Abdoulaye moo nekkoon constance constant fële ca ca PDS tey ñëpp di ko ŋàññi lan moo waral mbir mi. waaw xam nga ginnaaw bu ma nuyoo sant la nuyu sénégalais yi nga xam ñu nuyu seetaan ak di ñu déglu di leen jéggalu it. Mm-hmm. olof yi dañu wax ni bu ndox tuuroo. rooti waatu fa sës loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo jib man rafetluwuma ko. Mhm. ñu mel ni man it rafetluwuñ ko parce que nit bu ngeen di ànd da ngeen di ànd ci dëgg bu ñu lay rey nañ lay rey ci dëgg. Mhm. boo liiree tas euh, xabaar yi tey journaux yu bari wax naa ci. site internet yi wax naa ci te lu jiitu loolu. Mhm. depuis bi ñu defee le meeting 21 avril am kaddu yu fa jib artu naa ni lii raam ci ñag bi la jëm. kaddu la yoo ni ma ko waxee léegi kenn mënu ko rafetlu mais dama ne bu ndox tuuroo. rootiwaat xam nga rootiwaat mooy lan man du ma wax Ablaye Wade du ma wax PDS du ma wax keneen ñaar lay waxal kenn ki muy le président la république Macky Sall. te it mel na ni ku xelam njortoon lii parce que di ngeen fan yële weesu mu ni président Wade lu ko neex na wax lu ko neex na def dara du ko ci fekk. loolu nag li ko ci jig jigul ñi ko ci àndal ñi mu àndal mais keneen ki may waxal di ko lancer un appel te. tey ngeen ma woo invité ma. biig dama fanaan ci bind benn bataaxal boo nga xam ni mm. Karim Wade laa ko bëgg a muy lettre ouverte mm. parce que tey jàpp naa ni stabilité réew dal ci réew sérénité ci réew ci ay magam la reposer wu. te buñ ci del dinaa la mën expliquer clairement. Mm. pourquoi ma japp ni Karim Wade mo mën indi. dal ci dinañ ci ñëwaat lettre ouverte bobu mais ñu dess batay ci cadre yi ki nga xamanteni si mom moy jitt réew mm. euh, lettre ouverte bi dinañ ci ñëw légui ci kanam Serigne Mbacké li nga xamanteni si mom itam mom lañuy waxat est-ce que itam du euh, yaakaar gi amone mom mo tass Abdoulaye Wade espoir euh, ci parti ba ndax li mom motax tax gi tas. wa xam nga Abdoulaye Wade waxna ko légui té man ku ne xamna ne li ma xalaat dama koy wax wax naa ne rafetlu wuñu kàddu yi mais nit la aussi du leneen lu dul nit nit la ko nga xam ne tey am na presque juróom-ñeent fukki at yoroon pouvoir maanaam yoroon lépp xam nga surtout en Afrique boo yoree pouvoir yaa yor lépp nga xëy yoratoo ko benn doom bu góor bi nga am nekk ci kaso te nga jàpp ni li ko dugal kaso du yoon doom ju góor jooju soxnaam génn àdduna mu am ñaari at mënul gis ay doomam donc nekk ci situation bu metti boo nga xam ni mën na ko pousser ci lu ne loolu nak encore une fois damaay bëgg mu leer ci bop ñep ni justifier wu ma li def justifier wu ma kàddu yi mais dama ni comprendre naa nakar ak mitit bi nga xamni mom mhm. lay dundé 24 heures sur 24. Mhm. doomam ji nga junj nga ni mom motax mu def li sank nga yëkëti lu am solo muy euh, lettre ouverte bobu euh, mën nga ñuko ko faram fàccee. wa li ma ci wax ci lettre ouverte ba moy mhm. ablay wad dafa jël pouvoir bi en 2000. lancé appel wo doomu Sénégal ne fu ngeen mën nek ñëw leen jàppale si ma. su doomam ñëwuloon ñu ngañ ko. donc doomam bàyyi teraanga ja mu amoon ñëw jàppale si bàyyam ci liggéeyu Sénégal def ci liggéey boo nga xam ñëpp ràññee nañu ko muy lu am solo parce que résultat yu bari tey bu fekkee ni Abdoulaye am na ko c'est vrai Abdoulaye Wade la mais lu ci gën a bari liggéey ba Karim moo ko doon liggéey moo ko doon sos moom ak le ministre des finances Abdoulaye Diop mais Abdoulaye Wade aussi delloo Karim njukkal jox ko. loo nga xam ñu bari jàpp nañu sax ëppoon na. mais jox na ko ko Karim def ci liggéey bu rafet. Mhm. bu Abdoulaye demee ba perte pouvoir bi ñaari raison la. du bilan ñii dañu ne bu gañee Karim la koy jox ñeneen ñi ne Abdoulaye de mag la nañ ko fi jëlee donc Abdoulaye diggante mag Karim lu mu ci war def def na ko. Mhm. élection jàll ñu jël Karim def ci kaso bi bàyyam jóg di ko xeexal may fàttali ni donc Abdoulaye day faral di wax toujours ni. Mhm. moom descendant famille royale la maanaam ay buur lañu. Mhm. démb ak bërki démb. mais ku ni buur démb ak bërki démb gis koo nga xam da daan sacrifier bakkanam pour askanam. Nelson Mandela sacrifier bakkanam pour sauver Abdoulaye Wade muy waajuram def ñaar fukki at ak juróom-benn di xex pour Sénégal bu ëgg si fii kon Karim mi nek ci prison moom lay lancer un appel mo wara wax ak président la du suñu bàyyi ñun le président Abdoulaye Wade. mo wara wax ak tous les militants du PDS. mo wara wax ak tous les mouvements yi nga xam ma ngi leen di saluer bi ñepp toge ñoom ñu jóg di xex di jàppale Karim Wade mo leen wara lancer un appel. wo leen à la sérénité wo leen ci calme wo leen ci dal parce que calme ak dal sérénité bobu mo meuna tax tok am waxtan am entre sénégalais waxtan am surtout entre ñi nga xam ñoo bokk une même famille une famille libérale le ko deful famille libérale bi gëna éclaté wu danañ perte pouvoir bi et pour la première fois jàppal bax li ma la wax pour la première fois dans l'histoire du Sénégal la gauche dañ ñëw jël pouvoir bi ci ñun donc tay lolu nonu kenn mënu ko def kenn mënul téye Ablaye wad kenn mënul maîtriser PDS. Mhm. kenn mënul maîtriser ñi ànd ak Karim Wade ah. ku dul Karim ci boppam. ñu taxaw ci ci ci PDS ak ak désapprobation bi nga xam ne am na am na ci biir mu mel ni euh, ni ñu ko waxee sànq coow li coow coow li bëri na itam. waaw loolu boo war a tax suñu mbokk APR ñoom it maa ngi di lancer appel ñu dal. Mhm. olof dañu ne ku ñëpp jooyal doo jooy bu wax jógee ñun ñi bokk PDS de ablay wad xaru ñu Macky Sall wax ñu kenen wax ñu jog ñuko ah góor gi day japp nañ ni lii nga wax tay ëpp na li nga wax andu ñu ci kon ñom dañu war nak and ak dal parce que lekk loko bañ bañ da nga nangu ni nopp yu gudd na man na daw man tok na amna chance tok ak president de la depuis tay Macky Sall mi fi nek tay waxtaan ak mom ñu dégg ko aussi muy wax en privé musumako ko mu wax lu joonu ci Ablaye Wade kon ñoom ñi nga xam ne njobootu Macky Sall la également. war nañ mën a jéem a topp. toppandoo seen leader. parce que lu gën a diviser diggante Macky Sall ak ak ak ak euh, Ablaye uh-huh. lu gën a affaiblir Macky Sall lay doon. doguma la dañuy weeli ba tey éléments yi beneen bu ñu nemmeeku moom mu ngoog yenn yu bëri dañ ko censuré waaye li ñu gis moom mooy internet bi reprendraat na ko mu mel ni kàddu yi wormaalul njiitu réew bu Sénégal tegginewul moom moo tax ñu daal di koy censuré. waaw xam nga loolu man ni ma koy waxee toujours du tey la ku jikko a wax mooy rafetlu liggéeyu taskatu xabaar yi mm-hmm. xam nga ñaare danañ leen tuumaal xas leen dugal leen dëkkal leen ci néeg te du tey rek laa ko jikko wax wax naa ko fu nekk mais lii dafa wane ni kenn gënu leen bëgg réew mi dafa wane kenn gënu leen bëgg jàmm parce que saa bu ñu gisee loo nga xam ni ci cadre yu ko wàllu sport bi nga junj léegi ak yeneen ak yeneen mm-hmm. gis ci loo nga xam ñoom buñ ko waxee musiba am danañ ko noppi man dañu nekk président léeg événement daan na am man maay woo presse bi ni leen kat lii ak lii ak lii am na mais dès lors man maa leen jox information bi ñoom danañu seet naka la gën a rafete naka la gën a jekke ñu joxe information te tax mu yàq seen liggéey dara donc dañ ko wax maintenant pour le ce qui concerne internet loolu moom beneen affaire la beneen affaire la boo nga xam ni xay na euh, ni ñu ko mën a gérer euh, eggaguñ ci mais en tout cas lu lu lu doy waar la mais li am solo yëpp mooy ginnaaw ma rafetloo euh, waxu ni nga xam noo la presse mooy ñun ñi nga xam ñoo nekk ci langu politique gi. Mm-hmm. ñoo war a seetaat suñu bopp. yéen ñi nekk ci mm-hmm. suñu doxalin. Mm-hmm. seetaat nu ñuy waxee parce que nit ki. war nga ko rusa wax loo nga xam ëllëg boo jàkkaarloo ma doo ko mën a xool les yeux ah, dans les yeux. Serigne euh, nga naan euh, langue politique yi dañoo war a seetaat seen bopp est-ce que itam duñ ko tàmbalee ci parti démocratique sénégalais ndax lii buñ ci wéyee ndax parti bi du mujjee ci tas. non duñ ko tàmbalee ci parti démocratique sénégalais xam nga lu tax. Abdoulaye dañu gagné le 25 mars mu wooñu ni Macky Sall seen frère la jàppale leen ko ñu génn pale ñu ne Abdoulaye de sàcc na ay oto sàcc na ay tableau te tableau yooyu ñu doon wax na sàcc nañ ko ginnaaw bi pale dañ ko bind ni ko ñëwal jël ci deux cent ay quelques tableaux yoo fa kon sàcc ñu ko mais même bu doon ni sàcc nañ ko wax ji dafa rafetul donc Abdoulaye dañ ko accuser du ay kaddu yoo nga xam ne rus naa ko waxaat ci kanamu télé yéen ngeen di ko dégg bis bu yàlla sàkk donc du parti démocratique sénégalais mais dama ne niveau Abdoulaye wadd moo egg foo nga xam ni kenn mënu ko pardonner yenn yi. loolu mooy wax ci. mu nga am na yeneen Serigne Mbacké ñu bëri sax ne image yu euh, président Abdoulaye Wade yàqu na nga yàgg nekk proche collaborateur am jege ko lool euh, itam ngeen yàgg liggéey boo gisee kaddu yi di jibe fu ne di jëm ci moom ban yëkkit ngay am. ah damay am lu ma naqari. lu ma naqari lool lool lool lool lu mu metti parce que bu rek euh, wàllu politique jàlle Abdoulaye man sama bàyyi la. sama mbokk la ci loo nga xam du ma koy wax. Euh, donc ak fa mu egg ak fa mu eggale Sénégal fa mu eggale Afrique ma gis li mu liggéey ci Sénégal ak fi ko Sénégalais yi am na kàddu yoo nga xam ni parce que olof dañu wax ni bukki bu demee ponkal ca doxin wala am na loo nga xam ne bu demee ba nit am fitu di ko wax aussi il faut ñu nangu ko. ñun ñoo def erreur ou moom moo def li tax nit ñeme ko wax loolu bien que wax naa la ko tout à l'heure bari ki dem en fait semaine bële passé bi mu jógee Paris seetaan ngeen ci télévision yi APR def benn conférence de presse am ku fa wax bay wax naan ba Abdoulaye ba muy jógee Paris am na lu ko médecin bi wax nee nañ ko lii ñi naan da bëgg a xaru dafa bëgg ñu rey ko ci tout ça pour wax ni dafa jot li ma doon junj léegi. yow daal danga gis ne ñoom dañ ko xabtal. non xam nga euh, ñun ci suñu cosaan ak jàpp nañ ne mag bu amee bu laq yenn at yi kenn dootu ko liggéey jàpp ko jinne du ko jommal rab du ko jommal leneen du ko jàpp loolu moom jàpp nañ ko te it du question xabtal Ablaye bu ñu ko doon xabtal xaptal jàpp ko bu yàgg parce que li mu naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban loolu muy dëgg traversé na lu nekk fekke na lu nekk mais doom xëy na moom mel noo ko xam ni dafa sori ci doomu aadama ah. donc encore une fois damay dellu ci sama waxu njaal benn ci li ma waxoon njëlbeen. Mhm. du ma sàmba du ma dem ba dégg naa ku nekk ñuy wax diw na ci wax ku ne mën na cee wax dëgg la mais kenn dong tey moo yore clé bi. Mhm. te dama koy xool les yeux dans les yeux di ko lancer un appel c' à l'aise nag pour wax ak moom. Mhm. parce que ba ñu ko jàppee ak léegi du ma wax ni li ma xeex pour moom kenn defu ko mais kenn defu ci lu raw li ma ci def. Ah. te ba fii mu toog di wax du ma ci génn parce que li ma gëm mooy ak lu mënti xew dina génn ci kaso bi. du perdre ay droits dina mën a bokk ci ay élections en 2017 yalla nañu yalla suturaan ba toute la famille libérale and ak mom ñu def ko. Serigne Mbacké image yu njiitu bu Sénégal itam yamul rek Sénégal ndaxte gis nañu euh, ci internet bi radio yu mag yi reprendre ko ñu gis ci commentaire yi ne dafa melni ni image am sur le plan international itam ni mu taxé fi suuf ci Sénégal non la taxay foofu suuf. mais absolument loolu moom la lay wax ni. Mhm. il faut ñu nangu motax tax mhm. euh ni. ndox tourul nañu rootiwaat jima a rafetal. Mhm. jéem rafetal parce que Ablaye Wade. Abdou Diouf dugal na ko juróomi yoon kaso juróomi yoon. Abdou Diouf def na ko Abdoulaye ci kaso bi. mais ba mu génnee keroog bi mu jëlee pouvoir bi la Serigne Touba waxoon moom mi ñu gëm ni jéggal naa sama ay noon ba mu génnee ca ba mu jëlee pouvoir bi loolu la def jël avion présidentiel jox ko président Abdou Diouf. yónni ko mu dem teebale Sénégal ci benn sommet bu amoon. donc loolu lépp je pense que. coow li bari na. Euh. jaxasoo bi bari na mais président la république bi nga xam c'est le père de la nation muy président Macky Sall. Mhm. li ma moy tek ak dal baña sax tontu li ci dess nak je pense que yalla duñu meun di meun ñu am ci suuf. président Macky Sall mom ngoy tuddu ñu eh, yaakar dialog ak yeen sen digënté ndax li du tax dialog bobé eh, jaara fi nax say no geubu mu nax say parce que euh, ngono la ko tool mujj. fot fot wul mbaam ak nopam hmm. ak lu mu metti metti metti rek. Hmm. dañuy mujj rut waxna ko ci euh, presse bi mo wax li de presse bi waxna mané lu mu metti metti metti. Hmm. Abdoulaye de moo jur Macky Sall. Macky Sall wax ci Jeune Afrique yàggul ni duma fatte mukk ni fukki at ak benn def naa ko ak mom ci opposition def ak moom juróom-ñetti at au pouvoir man ma wéet ak mom mhm. mu wax ma lu bare bare bare bare long ci digënté mak Abdoulaye Wade. même entre 2012 ak légui loo nga xam ni du ma ko wax ci télévision xam na ko Ablaye da xam na ko man am na lu ma ci xam. donc gëm naa ni lu mu metti metti metti aussi bés a ngi ñëw darañ mën a retrouver très rapidement. Serigne Mbacké ñu koy sant di ko gërëm fàttali ancien ministre la bokk ci parti démocratique sénégalais ginnaaw loolu.